fini la affaire yu baax yi nekk fii nii la make-up yoo xamante ne amul fenn fii rek nga ko mën a amee def leen ne man gis ngeen sama bos gis ngeen ni ma naay see ah ba may dugg si yaakaar naa ne meluma woon nii mais mu dugg si fii nii rek rëccu ko benn yoon alors yéen jigéen ñi bu leen ko kenn nettali bu leen dem fenn ñëw leen seet si King marché HLM numéro téléphone bi yéen a koy gis alors ni mu def Marichou nga xam ni ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ñëpp ko naw ñëppay xool ci moom mu nekk seen identité nekk seen référence King dina leen ko def dal leen jàmm c'est une boutique Lodeco Lodeco nekk benn boutique boo xamante c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal le rideau yi façon couleur bu nekk que na fi lii daal Lodeco rek la Lodeco am prix en gros waaye itam am détail мой капитал Капитал Ты мой капитал Капитал Ты мой капитал Da fekk da ko capital ku ci sisu Da fekk da capital su combine selo ñëpp dañuy laajte na moñu dara to nakfi nelaw ma sama doom ba loxo ba loxo yaa ngi koy gaay mën na nekk la tey ci mbedd mi laa ko romb léegi di wax ak moom mu saaga la la sama doom maa ko jur maa ko yor yareew ma ko saaga saagaw ma la yaa ngi dégg li nga wax ni am tegul fenn est-ce que man am naa intérêt ñëw di la sama doom laa xam da nga ko war a lijjanti nag non ban lijjanti yow yaay yaa sama doom yow non mën na daje keneen man te yow non bul lijjanti loolu yow sa yoon rek non man li ma def man loolu laay lijjanti. waaw mais naa nga jubanti sa doom. du yaa may jubantiloo sama doom te doo ñëw ba sama gàlle nag fekk ma may entraîné nga may grillé. ok sa yaa ngi dégg li ma la wax. te dama bëgg nga génn sama gàlle. du génn parce que yoon dafa yoon man lijjanti yoon lan mooy yoon. Hmm. man sama doole sama loi nga naan ma yoon. ok eh, dama bëgg nga génn gàlle bi nga naan ma nga ne. c'est la police. continuer continuer sa làmmiñ bi ngay rëy. yow saaga de mu saaga mu. continuer wax ji. non non sëñ bi xam nga rek. amul sëñ bi xam nga dama nga demoon noo sa doole mooy sa yoon. non dégg may déglu lépp dañ koy waxtaane yaa ngi may dégg. chef bul looy def. tegil sa dara tegil sa dara bul woote waaye saay. allo. agent police Sidi waa cinq éléments rek la soxla. waaw loolu jotee ah eh, kaay kaay kaay kaay kaay. chef bul def nii tamit gaan lépp dañ koy waxtaanee tamit du doole nga am mooy du question loolu mais xam nga da ma fekk si ay entraînement maa ngi jégalu demeewul noonu li ma la expliqué rek booy bi sama doomu frère la da nga ne sa doom la waaw mais noonu laa la ko mën a expliqué tamit xam nga mooy loolu quoi tamit doom dañ koy yar sinon rek da lay joolu waaw lu leer eh, Codé eh, père père kay non père ñëw leen kii sama doom la moom problème mu ñëw fii xam nga di teg affaire yooyu moom laa mu ne day woo la jamu ju bari ki domam la rombo wa ci mbedd mi. wa muy fo ma indi ko ci mom nako ko def ma saga mu wedd lolu <laughs> mom la. mo def lolu non père bu len tek lolu ya, luñu tek yow yaro sa dom bu fekkee ngeen xaw ngeen. mujj def intervention sax gaan mais bu len ñew di wax lolu intervention pour lan pour yow. xale bu tooñee duñu wax ni dafa tooñ. ah non xamna lolu mais tamit ngeen japp ci parce que wona na ñu ngi ñew gaayam yan ga yow yow la kan yow. agent police Sidi. nan dem yow non bu leen dem. Eh, eh, eh, waay bu leen dem waay jàpp leen si waay tamit. ah non mënu ma leen bàyyi ngeen dem tamit noonu. jàpp leen si quoi loolu jënd ko saa daf may yóbbu ko. waaw xanaa ay dëkkandoo lañ tamit ngeen seet si loolu sax. ak weeru koor gi nii tamit waaw mais dama ñëw mu tàngal sama kaw. loolu pour lan la. dëgg la dama juum dafa ma fekk may entraîné suma yaram tàng. xam nga doo comprendre. yow moom sa yaram sa yaram saa bu tàngee yëf daf ngay def yow. waaw mais doo def yëfi nit. ku euh, baax tur bi nan la. Sidi Sidi. Sidi xam nga ma yow Sidi Sidi sunu kër nga yaroo sama yaay la yar seen kër ga sunu biir kër wax nga dëgg mer ko du waaw mais Sidi léegi yow da ngaa màgg waaw <laughs> kii doo as xoolal àddina Sidi takk na waayi <laughs> ah waa as ana sama yaay maa nga fa maa mu ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm bu baax man de damaa duggoon université. waaw temps bi ma génnee. waaw ma demoon école. dëgg la école police. ah école police. looloo tax ma xaw fa raar lool. ndeysaan ndeysaan. mais sama yaay. Uh-huh. ku baax a ngi noonu. dëgg la foode de kii ci sunu biir kër la yaroo. wala rek. mu doon ku neex a nekkal. ku amul jafe-jafe àdduna. tey dama ni lii xew nii lu yàlla nar rafetal la. dëgg la. ak weeru koor gi ni noppi yow amoo wax deglu rek yow lu yalla nar a defar day rafet rek. Mhm. xam nga ni ki buñ ci yamut won tay ji di nga tak numéro 10. 10 dixième directement nga jëm. d'accord djugul waye nak Siri man sañ na la ñaan. Mhm. ndax kóllëre gi nu yalla boole. te suma la ñaané di nga ma may. dëgg la may ñu rek yow. mais woo na gaayam yi wax. yow noppil. yow mu ne ah, dama lay door bànq. maa ngi jégalu may ma Sidi. mën naa la ko may. ndeysaan. waaye kii. Mhm. ni ma accueillir baaxul. te bu fekkee ne ay mbokam ngeen war ngeen naa mun a wax ak moom mu changé doxalinam. Mhm. ndax sa yaay moom ma doon denk leen. Mhm. naan ma doom ma ne ko naam. ne ma butéel li mu def loolu la kubéer bi di xëy. dëgg la te booy bi ni ma ko fekkee ci biti noonu laa fekkee. ci moom la moo gën a nëb. mais comme ñaan nga ma dinaa bàyyi lépp ndex sa jëmm ji. dimbalee ma loolu a sama jëmm la koy defee lépp rek àdduna xel xel mooy liggéey. mais du doole dëgg la. jubul waay voilà. Hmm. mbër allo oui. agent policier de waa intervention mën nañ ko annulé ah. jërëjëf merci. la yàlla fay. jërëjëf wan ne àdduna. muy ŋaññiral di mel ni jargu meññi. sama père xamoon nga ko keroog. àdduna du doole de. dëgg la yow sa lépp ci estrom nga ko teg doole. yow boo jëlee satala gi jëm ci douche bi sax. doole ngay njaabe ah, loolu la foog xam nga ñii ñoo mooy bàyyi mais ñii dina tàng lool ñii samay dëkkandoo yu baax lañ saa yu ma amee combat ñoo may ñaanal est-ce que mënoo xool ci seen baax nga baax hmm. parce que ni nga ma accueillir nii dëgg la doxalee de oh, Fodé hmm. sunu dëkkandoo yi jar nañoo sant nag de nii waaw capital de ku mën a dëkk ak ñoom rek. ñun dañoo bëri affaire de. trop trop trop trop trop. wala suñu maire bi suñu wet fii maire Cissé. waaw mooy maire biy dugal. yor baag bi yor baag bi noonu. waaw. vraiment ka fàgg ma ne ko ba nga ko rombatee danañ ko nuyu ba di ko sukkal. maire bu baax la gis nga dama bëgg sax nuyoo bi ma bëgg nuyu waa koñ bi. ak di leen ko baaloo ak. Hmm. ma teg ko ci loxoom. mu séddaleel ma ko maire yëpp ya. parce que maire bu baax la. billaay ak ñoom maire Faye. Oh. maire Faye mooy suñu maire bi suñu dëkkandoo bi ci kaw. waaw ñoom Soda ñu ñàkk jaaxaan ngi noonu amuñu problème ñun dañoo lakkale de waa capital salaamaaleykum waaleykum salaam nañ defaat ñoo ngi fi rek waaw mooy fakka saloo de ak jéego ñu jam bu naka koor gi ni ñoo jam si jam? jam maa jam la lu xew waaw jam la xam nga su jam dama ñëwoon jam sant rek kon su ma ak yéen li fi jotoon xew ñëwoon pour balu len ak xam nga. suñu diggante ak yow. waaw ya? nah. kon amoon na àq. man dama japp ni amna ak parce que xamna ni mu dee amna lu ngeen ma jappal motax man ma na ñew balu len ak ci wéru ko gi. kon yow mbër. ni la dimbal léegi ak policier bi mo mo la tax ñew ci si fii. demewul sax du question de dimbalé sax. ah mais xam nga ay dëkkandoo lañ tamit. aduna day sañ na ñew jéggalu aduna da ngay yor sa doole mhm. foog ne yaa moom nit ñi waaye bis mooy ñëw yàlla wan la ne amoo doole man maa am doole te moo ne ku ndaw la ko booleel keroog démb mhm. ba ma tey ku tuuti mu faj ko wan ko ni ko doo dara dama ne woon damay ñëw waxtaan ak yéen bu ko defee sax comme maa ngi préparé benn combat xam nga bu ko defee sax ma def leen samay coach ngeen may entraîné pour ñu lay entraîné waaw yaa ba pare ñaata ngay fayeeku sa yow non bon man maa ngi ba cinq millions ah. cinq millions comme instant nii ngi door a démarrer xam nga. Hmm. waaw mooy loolu. Hmm. Ah. buggoon leen def sama coach quoi. xanaa bu dee dañ koy jël ñu dimbali ko te yàlla tax rek. loolu dañ lay jàppale rek de. loolu moom mu fi gën a indi tamit. parce que man moom su ma la yoree. waaw ancien leader la. lutteur la ñuy wax yooyu non du ma lutteur leader la. lutteur lutteur. leader leader man leader la. waaw hmm. léegi yow daal ñun ñoo yor entraînement yeeg contrat yi ñoo koy signé. non contrat mom du ngeen ko signé. Ah. entraînement rek la sox meun nañ la té mhm. di nga am entraînement entraînement bu baax. Mhm. physique. Mhm. force. box lool la bëgg motax ma ñëw si yéen. boole ko di nga lekk lekk bu baax. bo liggéey jee ba wacc entraîner jee ba ñëw. ñu tégal la boole rakal rakal man di nga xam. ah rakal du ngeen mako jox mu joggé entraînement ngeen ma jox ay rakal xala yow bëggoon ñu yor la tam. wa mais deug la mais xana bëggu leen sama ndam tamit. eh ñàkkul fi yow xam nga bu baax li ngay def toogal compter sa papa. ni ngi doon compter nag dafa lekk noonu. ko ma dóor rek. waaye sans laaj soxla. waaw amuloon lu mu mën a teg fii pour non père yëkkatil lii. waaw kii mën na tere bañ a. waaw kon kon sëggal bàyyi discussion moom bëgg a yàgg ayca. ba fàttalikoo ñun fi lañ ko defee woon. mbër tubaab nga de. waaw ñu dem ah. ñu dem ah moom na la compter. ci kaw. deux. waaw. 4 5 6 7 8 9 10 11 0 11 12 demal la wax demal 11 12 defal li mu la wax defal li mu la wax ñu ay ca demal yow ma xool demal ay ca waaw ah, xaaral ah, ma toog nii sax bu mu a sa gémmiñ. waaw mais def naa diis ba pare. waaw ah, léegi léegi da ngay wàccaat. demal demal wàccal demal. moom lu muy siñ bañ a ca. demal wàññil. Hmm. ah ayca. Hmm. Euh. ñamatoo ñu eh jug naa naa jug ci kaw. naa jug ci kaw baal wax ak yu wax àndul. mais tamit bu ngeen defee nii bu ma gaañoo noonu laay bëree ci combat bi. Eh, li nga lay gaañ ñun ñoo lay demal. ah mooy tamit daaneel yow. ayca yow kontaan yow. waaw. te ko yor. day dem mhm. kii bi lañ lay dugalal doole day ñëw force. booy wax ni ci ngay gën a sonn da ngay wàcc. ay ja day tax doo mën ndengeñ sa wax ju bari ji. nee na zéro. un deux. Ah, waaw. trois. Mhm. quatre. Mhm. cinq. six. sept. waaw ajal ci tànk bi yow may xool. neuf. neuf. zéro. nee na zéro ah, moo fontoo de. Eh. wax lañ lay tere yow yow yaa ma ko teg ba pare nga may. Eh, yow defal nee na la zéro a wàccal ni baax. waaw tu tamit xam ngeen. pour ma eh, oh, demal yow. waaw bàyyi ma dem demal defal benn loxo ma xool. demal. demal waaw père da ngeen may gaañ tamit. gaañu la ba ma téye may Eh, mbër appui avant. fer nag bu. Eh, xoolal mbër mbër. waaw ah, ñu dem ñu dem maa ma teel la nii nga aji. demal mbër nag nag xam nga di yëkkati yow. demal eh, parce que dama ah. teg nii sax demal. waaw dama yëg deux fer ah, lan la eh taxawal. mbër lii mooy lan la. mbër bul fàtte yëf. ah non lii mooy lan la. dañ lay won waay tamit. defal ay pompes dañ lay won dañ lay won taxawal. non bu dee dañ lay taxaw dañ lay won. wóoy ma bu dee lii nag damay dama ko dama koy bàyyi de. non non ko bàyyi de dama leen bëgg a def samay coach sabi ngeen may def lii. mbër fàttalikul tam. eh wuy ma sëgg leen ngeen appui avant

seetul ma domino yi dugal ma xool domino yi nii waxuma la nga dégg wëlbatikul comme saako de imagé bu ñu tegoon saako wëlbatiku ma wala ah non père tamit mbër wëlbatikul yaa ngi tardé sa bopp fan ngay dóor dama lay wax ah non père affaire bi du noonu. lan la yow yaay sama coach. waaw yow da ngay yëkkati loxo yi may dóor. wax dëgg yow yaay yëkkati mu dóor. waaw ayca képp mbër lu may def nii yow. ngay def nii ah non boo ma wanee ba pare foog ma. déedéet dama lay wan mais doo doo danga ma bëgg a gaañ lan e. la yow. nilakay ah da ngay jël ñu dem ah ñu dem ah dóoral fii eh bë eh loolu la amee mbër waaw moo dama bëgg a wan rek otel yow waaw père xanaa sa yéeli doo ko entraîné yow loolu yëpp bu ci lijjën sama yéeli bàyyi ko waxal kii woon pàccal ñu dem ay ja père foo jëm damay rek la fa may xool début ah ok nee na non non non loolu mënul nekk tam ngay ngemboo ci la say morom di jàpp demal wàccal mbër ayca mm-hmm. demal fer di noo ma gaañ de ah. léegi ba ma def nii dégg mbër mbër dina ma eh mbër. Ah, yéen a bëgg a waaye da nga bëgg a gaañ wax ah, gaañ ñu la yow mi wuy ma. fer demee nii nag fer. fii mooy capital. capital. Oh, oh, oh. Be my capital.